Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad Ibnul la dimbal yal na nga yeggale naalu gaay baax yi fi woon yal na nga yeggale naalu gaay baax yi fi woon sa yéen yi ci sëñ Tuuba nga xëy ko matal رضيت عن المولى تعالى الذي أكرمي رباه بخلقني كل يوم عبد اللومي قديما دواما بالذي اختاره عباد به خلقني كل يوم عبدا بذكري وأني أطوفنا روى النار وسبا نبس لخال الله عبدا مرتلا بذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما سعيد قدير الشيخ محمد mu yàgg loolu ak euh, ci Magal Cheikh Abdou Lahad bi nga xamante si ni sëriñ Sidi ñu ngi ñaanal suñu lool ak njaboot gi euh, ñu nekk ci commission culturelle bi ci jiite Cheikh Abdou Lahad Jaxate nga xamante si ni rek membre bi lañ euh, sëriñ bi nag joxe woon ndigal ci ñu yaatal lépp loo xamante si ni luy liggéey Cheikh Abdou Lahad la wane dundug Sëñ Abdou Lahad ñàngalem ah, Sëñ Abdou Lahad ba taalibe yi ak jullit yëpp mën cee jëriñu bu baax a baax kon nag ah, fii ci commission culturelle bi nag biñ ko waajalee ay waxtaan ak ay ak jàngat discours yi nga xam ne war nañ ko amal ci bisu màggal gi ci mboolem site internet yi ak rajo yi ak télévision yi ñoo ngi koy àggale nag fii ci bisu màggal gi 23 ah, Kori ci fii ci buñ ko Sëñ Abdou Lahad tey nag exposition bi nga xamante ne amal nañ ko fii ci buñ ko Sëñ Abdou Lahad am na thème thème bi mooy lan mooy assalaamu wa tasaamoo mooy jàmm ak xajoo di nga xamante ne si Abdou Lahad doon na ko euh, jëmmal bu baax a baax ni mu ko doon jëmmalee yaat na yaatu goo xamante ne nii mën nañ cee wax lu bare bëri waaye dañ koy tënk rek ndax si Abdou Lahad euh, bu ñu waxee xajoo ak jàmmoo euh, taxoon na mu wax mu waxoon waxam ju siiw ja wax na li muy aaye moom ñëpp ku aaye koy aaye ngir sunu borom moo ko aaye yonent bi sallallahu alayhi wa aaye Sëñ Tuubaa aaye ko. ma dikk ma nit di ko aaye kon moom li nga xamante si nii moom la Sëriñ Tuubaa tegoon tànkam ci sunu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu rek la teg tànkam mu jëloon nag Matlabul Fawzayni bind ko bindin woo xamante si nii daf koy jëmmal liggéey Cheikh Ahmadou Khadim bi jël bind par bind di seqal liggéey moo tax réalisation yi nga xamante si def la ko fi ci diirub xilaafa fi nekk bëri na lool daanaka mën naa ne la lépp dëkk bi euh, yokk na ko wala lépp lu mun a ñàkk dëkk andi na ko biir Touba te it la gën a am solo mooy defar jikko mën nañu wax ne sunu classe yi mille neuf cent ba jamono yi ñu toll wala boog lu ko jiitu sax euh, ñëpp war nañu gën a sant si Abdou Lahad bu baax a baax ndax buñ demee ba mënoo xàmmee luy euh, kasetu euh, leneen wala bidon leneen wala boog mandarga loo xamante ne lu yàlla aaye la bu ñu la ko waxoon tey mënoo xam ndax lii lan la loolu euh, nañ ko sante Cheikh Abdou bu baax a baax kon li yàlla doon aaye wala yëpp doon ko aaye wala doon ko aaye moom loolu la ñëw teg ci tànkam di ko aaye kon nag day ne jaamu yàlla war a bokk li nga xamante si ne maanaam mooy liggéey yi nga xamante si ne mission sant lépp rek muy mën a ci kaw jaamu ndax lépp loo xam ko yëkkati jaamu amul loolu da ko tegaat ba jaamu am kon nekk na liggéey yu yaatoo yoo xamante si jëmmal na ko ci biir njaboot gi mooy ñi nga xamante si ni nekkoon na fi ñii di ay waa Kër Cheikhul Khadim Cheikh mi ngi mën a am ci kaw jàmm ndax lépp loo xam ne boo yëkkati jàmm amul loolu da nga ko tegaat ba am kon nekk na liggéey yu yaatoo yaatoo yoo xamante si ni jëmmal na ko ci biir njaboot gi mooy ñi nga xamante ni nekkoon na fi ñii di ay waa Kër Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadou Mourtada Cheikh Souhaibou soxna may muuna Suxra ak mboolem doomam yi nga xamante si nekkoon nañ fi daan diis ak ñoom bu baax a baax ba lépp lu mu dana ci waxtaan ak ñi ci war a waxtaanal ba bu ko waxee wala bu ko yëkkatee ñëpp xam ne njariñ kese la te loolu lépp li muy jëmmal rek maanaam mooy njàngaleem Seexuna Ahmadul Xadim ah, jàmm dafa jiitu ci lépp noonu tamit la ko doon ci biir turqa suufi yi kenn ku ci nekk xam na turqa suufi yi fi nekkoon ah, ñu joxoon bopp si Abdul Ahad lool ah, mësuñu ko ñàkk jox mësuñu ñàkk jox bopp yoonu murit waaye li si Abdul Ahad nekk nekkee jëmmal na ci lu bëri loo xamante si nii ba fi toll nii toujours rek njàngat yooyu ci la ñuy gën a gën a gën a dox kon nag euh, trop soofe yooyu lim liggéey ci yoonu murit buñ nga waxee rek day doy sëkk waaye ñi nga xamante si ni bokk na ñoom yoon mi sax euh, da ciy liggéey liggéey yu am solo kon liñ xam ci Sëñ Abdou Lahad lim euh, dox ci tànki jàmm ak lim defar ci àddina liñ ci xamul moo ëpp sax liñ ci xam kon nekk na lu yaatu loo xamante si ni ba noonu la ko defee ci biir réew mi ak bitim réew ambassade danaan waxtaan a njiit réew mi Abdou Diouf wala Senghor a doon dañuy diisoo lépp lu ñu war a def mu ne lii dañ ko war def lu ñu war a def ko ba noppi sax day wax ne loola nañ fexe ba waxtaanaat ci ba nosat ko nosen woo xamante lu aw yoon la day wax ne lépp loo xamante si nii rek euh, lu la wala lu mu bëgg a def la maanaam lambatuwu ko lu mu xam la te bu ko def njariñam moom taxul ndax wax nañ ne Abdou Diouf bi mu ko laaja ne ko lan nañu yore am réew mu ne ko xamuñu yore am réew waaye xam naa nañu yore kër ni ñu yore kër mooy lan mooy nee na ko fépp fu njëriñ nekk ñu jëli ko te bu njëriñ la ñëwee nga teg ci digg bi li nga xam ne saa jëlee woon njëriñ li kilifa bi yaa ngi gën a néew lay kon Abdou Diouf ne ko kon loolu rek nañu yore am réew njëriñ fu njëriñ nekk ci àdduna bi rek ngay fexe mu ñëw te bu ñëwee xamante ne yaay kilifa gi yaa ci gën a néew la looy jëriñoo kon Cheikh Abdou Lahad nekk na euh, koo xamante ne nii jëmmam rek boo ko gisee ak colinam rek wala mu wax rek da ngay xam ne euh, kii di wax moom mooy kan boo ko gisee wala nga ñëw ci moom wala nga wax ak moom wala nga jëflante ak moom da nga xam ne nit dëgg ngi nii nit nitu nitu nit ki nga xamante ne nii maanaam Sëriñ Tuubaa yaakaar bi amoon ci moom ba wax ne am naa ci moom yaakaar nañ ma ko ñaanal loolu yaakaar jooju tasul yaakaar Sëriñ Tuubaa ndax loolu jëmmal na ko jëmmal bu wér a wér boo xamante ne nii kenn ku nekk rek muy mag muy gone muy jigéen muy góor mën naa laa wax taxawaay si Abdou laat ci loolu yaatu yaatu loo xamante si nii mooy gi sax gën a jot. ñun suñu suñu suñu suñu suñuy gëstu kon laal si Abdou Lahat euh, ab taxawaayam rëy na yaatu na lool bokk na ci ay xikma yoo xamante si daanaka wax mu nekk loo am solo loo xamante si daf koy wax euh, wax yoo xamante si dafay am solo euh, ba noppi gàtt lool gàtt lool nga xamante si ni day day jamono day ëmb jamono wax yooyu mooy lan mooy ay xikma xikma mooy wax yoo xamante si ni dafay làmboo dafay gàtt waaye nag dafay làmboo loo xamante si ni mën naa ëmb njariñu àdduna nit ki mën na ci njëriñu di ci gis boppam di ci seetu di ci jànge lu bëree bëri mu ne sago ak jub bokk na na sago ak sago ak jub ñoom ñaar ñoo mën a defar àdduna sago ak jub ñoom ñaar ñoo mën a defar àdduna loolu lu gàtt la waaye boo ko xoolee da ci ciy mën a jàngate lu bare bëree bëree bëree bëri bokk na ci biir xekk ma yooyu mu wax bu jàmm amul lépp lu waay yëkkati lépp lu waay woon ah dana dana ko teg ba jàmm am <laughs> jàmm bu amul doo mën a julli doo mën a dotal dara kon jàmm bu amul kon lépp loo mën a kon da nga koy teg ah ba jàmm mën a am mi ngoog mu kër borom këram borom kër bu këram yëngoo day wax ak waa këram borom këram borom kër bu këram yëngoo nee day wax ak waa këram loolu mi ngi ko waxoon ci atam 1989 jamonoy Abdou Diouf. Euh, atum euh, FMA naar yi boobu la doon wax Abdou Diouf ne ko borom kër bu këram yëngoo day wax ak waa këram kon jàngat yu am solo la yoo xamante si nii bëri na yu ci nekk mu ne foo gis jàmm ne fa dafa jub dañu fay def lu neex yàlla ak lu yàlla santaane ah foo gis rek maanaam jàmm am fa jàmm ji eh, sax fa mu neex lool nit ñi di nekk seen li nga xamante si noonu ñu war a jàmm suñu borom daa fekk def lu neex yàlla def loo xamante si moom la yàlla di santaane. kon da gis ne kon tere yi mu doon tere fu ñu defee lu neexul yàlla wala defuñ fa lu san lu ñu santaane lu yàlla santaane ja ñàkk jàmm eh, aw ay dana fa yomb lool kon nag moo tax asalaam wa tasaamahu boobu muy wax kon eh, bëri na loo xamante si nii ñoo ngi koy wax suñu jamono ji waxam ji buñ ko jàngataatee day mel ne kon mënees na koo jëriñoo ba yow nekk yóbbu boo xamante si nii day dem lu yàgg yàgg yàgg ba ilaa yomul xiyaam kon laal sëñ Abdou Lahad yàlla ñu ko yàlla fayal dimbal la yoo xamante si ni mu ne su wax lépp tënk la rek yoo xamante si ni kon fii bi amal nañ ay liggéey yu yoo xamante si nii ci wàllu thème bi ak euh, biographie sëñ Abdou Lahad ak thème bi ni ñu ko waxee rek asalaam wa tasaamu ak fi am njàngam jaar ak réalisation yi nga xamante si def na ko muy ci dëkk bi muy ci Touba Belal bi nga xam ne santoon na ko te am am nu mu ko santee woon yóbboon bu ma fa doon jàngale kon liggéey yaatu yaatu la kon nag moo tax asalaam wa tasaamahu boobu muy wax kon euh, bëri na loo xamante si nii ñoo ngi koy wax suñu jamono ji waxam ji buñ ko jàngataatee day mel ne kon mënees na koo jëriñoo ba yow nekk yóbbu boo xamante si nii day dem lu yàgg yàgg yàgg ba ilaa yawmal qiyaam kon laal sëñ Abdou Lahad yàlla ñu ko yàlla fayal bind la yoo xamante si nii mu ne suuta wax lépp tënk la rek yoo xamante si nii kon bi amal nañ ay liggéey yu yaatu yoo xamante si nii ci wàllu thème bi Euh, biographie Cheikh Abdou Lahad ak thème bi ni ñu ko waxee rek asalaam wa tasaamu ak fi am njàngam jaar ak réalisation yi nga xamante ne def na ko muy ci dëkk bi muy ci Touba Belal bi nga xam na ko te am am ko santee woon yóbboon fa ku ñuy wax sëriñ Hazazi jàngalee alxuraan kon liggéey yu yaatu la yoo xamante ne Cheikh Abdou Lahad réalisation yi moom bu ñu ko doon lim du jeex mën nañ ne daanaka lépp si Abdou Lahad rek euh, euh, lim tegoon tàngam laal mooy fi Sëriñ Tuubaa bëggoon fu teg ab tàngam kon euh, taxawaay yooyu daal la commission culture bi taxaw doon ko xamle mbokki taaliba yi ci mbooleem rek euh, tasukaayu xibaar yi ci rajo yeeg télévision yeeg site internet yeeg euh, fépp foo xamante si rek mën ko fa jàllale ba mission bi nga xam ne moom la sëriñ Sidi sant commission culturelle bi ñu mën koo taxaw taxawaayu ngir gën a xam ne kan mooy Cheikh Abdou Lahad ndax nekkoon na ko xam si dafa jëloon dafa niroon Seydina Omar bu wér a wér Cheikh Abdou Lahad lépp looy wax ci moom nay doon lu jub nay doon dëgg waaye lépp loo xamante si ni euh, safaan na ak loolu boo ñëwee ba ci moom dana dàqante sa diggante ak moom bu euh, fit wooy am ba ñeme ko ba ñeme ko sax jàpp naa ne doomu ñu new amu amu amu ko kon nag yàlla ñu ko yàlla fayal euh, ñaan sunu borom Cheikh Mamadou Mountakha yàgg ko àll wér ak rakkam di baax Cheikh Sidi Cheikh Sidi moom Cheikh Abdou Lahad ak mboolem rek taaliba yi ba sumb yi nga xam ne naanoon na ko Cheikh Abdou Lahad yëpp rek mu àggale ko ni mu ko bëggee kon daal kooku mooy Cheikh Abdou Lahad nekk jàmbaar joo xamante ni ñu war a fàttaliku la waxuma la jam ci bis bi rek waaye toujours rek war nañu jël am njàngaleem di ci teg baaraam ngir di xamle kan mooy Cheikh Abdou Lahad ak li doon jàngale ak lan moo taxam di ko jàngale moom boppam taxul waaye mission bi nga xamante si nii daf ne ñu yóor ci ci ñi maanaam kilifa bu mën a doon ba ci borom këram ba ci borom kër gi la ñi nga xamante si nii ñoom la ñoom la nekkal kon mission bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngale képp kuy kilifa ak ku mën a doon rek war na mu Euh, jël mission boobu di ko àggale ba kenn tulaay kàttanam ba li suñu borom bëgg mu am ko ni ni mu ko bëggee nga def sa kenn tulaay kàttan lim bañ tamit nga ba nga bàyyi ko lim bëgg moom li si suñu borom diglee moom def lépp maanaam mu ne si ko xañ na dañuy jéem da ngay jéem sa kenn tulaay kàttan lim bëgg lépp nga fas yéene nag def sa kenn tulaay kàttan lim aaye nag nga bàyyi si kenn bañ la gis kon daal yàlla ñu yàlla fayal si Abdou Lahad wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu إذ ناديته بيا ولي أياس من الله دجا ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي